asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 22 septembre 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy tey dooreeti ko yëglikaay bi nag dafa ñëw ci face bi nga xam ne amoon na bërki dem wala boog am ndaje moo xam ne boog diggante Boy Niang ak Tapha Tine ci ñoom ñaar la doxoon mu mel ni ki nag yëglikaay bi laaj ba mu xëy samp tey nee na Boy Niang ndax fa Ama Baldé jaar daf fa exploit maanaam réussir fa daan fa Tapha Tine ce que moom mu nga ca yoon woowa wala boog ndax dana war a a def lu mel ni ki noonu yëglikaay bi wan ñu ko ci photo woo xam ne nii wu fës la mu takk ay lu na tam yëglikaay bi ni suñu làmb moo xëy ñëw tey nu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne nii yëglikaay bi xëy na tey di ko laaj wala mu samp ko muy ténor ya nga xam ne ñoo nekk ci mburu ka ci jiitu mooy bombardier assurance tubaarkalla ak Auguste Mbagnick Sène mel ni ki ñoom nag daal are la yëglikaay bi jàpp ne moom la ñu def maanaam dañoo doon dem ba li yàgg daal ñu jekkee-jekki xaw sunu làmb xëy ñëw tey wax ñu lu mel ni ki noonu leneen ne nii yëglikaay bi ñëw na ko ka ko def nag moom mooy ki nga xam ne mooy Adama Sané war a dox ci diggante Petit Niang bu Boun ak Brise de Mer ba nga ne moo nekk fa nga xam ne mooy ca Grand Médine yëglikaay bi di sunu làmb xëy ñëw wax nu boobu combat keneen koo xam ne ni moom mu ngi xëy tey di wax muy Aboubacry Samb moom nag ancien colonel la boo xam ne daal dafa dem retraite wala colonel bu retraité moom daal ne day rus daal ci doxu wala boog day rus ci mbirum Alioune jàpp na ne daal dem la Alioune Sarr def loolu yëglikaay ba xëy ñëw tey seq ak moom waxtaan moom colonel booba nag mu ngay wax daal ay wax yu yaatoo yaatu jëmale ko ci mbir ma nga xam ne nii moom moo am nee nag maanaam jël place Alioune Sarr na pour ñu gis ku koy succédé moom nee na lool du doon lu yomb lu difficile lay doon lu jafe-jafe jafe la nee na sax Matar Ba mi nga xam ne mooy wéraat Alioune Sarr maanaam jël kayit ya tegaat ko ci loxoom ne ko doxalal ne na moom yoon may na ko ba tey ne na tamit daal CNG fi mu nii buy ñëwaat war nañoo defar benn maanaam structure ko ba nga xam ne daal taxawal bureau exécutif yu mel ne kii noonu ba nga xam ne dina nekk loo xam ne daal dana jaar ci aw yoon ba nga xam ne daal lu tege ci yoon lay doon moom daal loola xëy tey ñëw dina ko wax fa nga xam ne nii moo di ca sunu làmb leneen loo xam ne nii yëglikaay bi ñëw na ci muy sàkku xam-xam ak seen combat yi nga xam ne nii bëriwul te victoire dul benn ay défaite ñett lañ ca am maanaam kon écrit sàkku xam-xam daal benn victoire trois défaite la ñu def Mori Cargo moom ka ko pénaliser du kenn ko dul Cheikh Super Jamono ma nga xam ne moom la seqaloon ab combat te far combat ba yëggul ndax ay affaire ba tax mu ñàkk bés booba ka nga xam ne nii mooy agogo moom Thiéli moo ko daan daal di ko taxawloo Boy Diop Bébé Saloum numéro 2 ak Anaconda ñoom daal dañoo some maanaam combat ñoom amuñu ko yëgli kay ba wax nu lu mel ni ki noonu brise de mer numéro 2 ak acteur moom ñoom itam daal daa mel dañoo xaw a cité yëglikaay baa xëy ñëw wax nu ko Père Birahim Ndiaye nag ma leen yore nee na daal maanaam li mën a nekk mooy gën a liggéey ngir nag renverser tendance yi maanaam soppi doxalin ba mbiree jaar ci aw yoon yëglikaay bi di su làmb xëy ñëw tey wax nu lu mel ni ki noonu mel ni ki leneen loo xam ne nii wala beneen yëglikaay boo xam ne buñ ca demee daal muy record ak la nga xam ne nii daal fi mu nekk nii daa mel ni annoncé waat nañ ko muy mbirum activité nga xam ne nii mooy activité sportive yaat yeneen mbir ya mel ni kon daal ndax début combat yi war ta mën a nekk ci de novembre record a xëy ñëw wax mel ni leneen loo xam ne record ñëw na ci mooy buru bi am ci diggante Gaston Mbengue ak Gris Bordeaux mu mel ni kon nag Bombardier nan la ñuy def wala boog fu ñuy jaar ba mu hérité nga xam ne moo di Balla Gaye waram jël combat ba dal di bëre yëglikaay baa xëy ñëw wax nu ko ñi nga xam ne ni ñoo nekk ca fa nga xam ne nii moom mooy li ba moom daa mel ni nouvelle équipe bu CNG bi war a ñëw daa mel ni ñoom itam ñu ngay waajal wala boog waa li simple ba daal benn mémorandum ngir ko gaa ya nga xam ne nii ñoom ñoo war a ñëw ngir doxal la nga xam ne nii mooy làmb ji nga xam ne ca la jëm wala boog nouvelle CNG bu bees bi nga xam ne moom moo war a ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internetu Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar leen wax ne namoon nañ leen comme ni ngeen ñu namee ah di leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko saaku ci yéen comme ni ngeen ko xamee nag ah revue de l'arène bi dikkaat na tey démb nag ñu ngi jéeglu ci ñàkk dikk bi waaw ñu ngi ciy jéeglu bu baax a baax a baax bu ñu sañoon saa suñu rek ñu indi leen ko muy dem ay ndok ndok moo amoon ba tax gisu ngeen ñu démb parce que xam ngeen ne ah, benn émission bu ñu doon tourné ak tafaati nag booy ñaa biñ ci paree nag newoon ci montage loolu mu guddi lool ba presque ci lañ fanaan ndax affaire yi xam nga yombul woon loolu moo tax démb gisu ngeen mais ñu ngi ciy jéeglu bu baax a baax waa di nuyu képp ku ñu suivre rek waa di wax ne tamit euh, li nga xam ne nii tey ci la ñuy ubbee mooy sunu làmb ak li nga xam ne ñëw na ci tey ci diggante wala boog ama booy ñang mi mu ñëw tey fësal ko ndax li Ama Baldé def ci tafaatin est moom dina ko mën a réussir loolu yëglikaay bi di suñu làmb xëy tey samp laaj di ko laaj loolu nag bu fekkente ne am na lu ñu ci mën a tontu mooy dama naan booy ñang tey ci làmb dama naan lu mbër di mel ci làmb pour man mel na ni lu mbër di toll toll na ni lu mbër di war a mën a def ci làmb pour man war na ko mën a def tey ci làmb parce que li tax mooy xale la macha allah te itam am na encadrement te ku ne xam na ne ci hygiène de vie bi ñuy wax ci sportif loolu mu ngi ci moom actuellement ku mel noonu nag moom combat bu mu jël ba leneen di ca am da ngay jàpp ne war nañ ko mën a daan d'accord waaye jàppal tamit ne war na mën a daan adversaire am parce que nag li ñu gis ci moom du fooyee làmb kon defe naa la Ama def Boy Niang mën na ko def waaw loolu lu war a nekk la daan tafaatin te itam loolu mooy ambition te loolu la bëgg yaakaar naa ne li tax mu jël avance bi jëlu ko pour ñëw daanu si wax na ko kere ci jataay bi yaa ngi dégg kon defe naa loolu moom nekk na biir moo xam ne nii la ñuy wax nañu yónni yàgg rek dafa fekk ne rek làmb daa yombul waaw sa morom mbër nag mën na ñëw bëre fii daan yow nga bëre fa ñàkk mën na mën na fi ñëw bëre ñàkk yow nga ñëw bëre fa daan loolu day am ci làmb yaa ngi dégg làmb noonu lay doxe parce que làmb li ñuy wax rek reenu ñàmbali kenn xamul fan lay demee bu ñu ñëwee tamit ci fa nga xam ne mooy suñu làmb ñëw na ci mbuur ak seen ténor yi nga xam ne ah daa ni gëj nañ leen gis muy bombardier muy ogis muy pakala muy assurance loolu nag xëy na li ko waral mooy làmb ji ni mu demee ak yenn problème yi ci amoon ak pandémie beeg yooyu ak yeneen ak yoo xam ne ni daal tax na xëy na ñoo ñëpp ñu gëj parce que ñoo boo xoolee mën nañ ne bu gëj nañoo bëree gëj nañu bëree lool muy lu xaw a yàgg loolu nag xam nga nekkul loo xam ne nii ah lu gën la ndax mbuur itam defe naa ne la boo xam ne nii tey ci wàllum làmb euh, roi des arènes dugg na fa ñaari yoon kooku fa yóbbu moom moo di bombar ji ci biir mbuur commune mbuur ak Joal roi des arènes ku ne xam ne yóbbu na ko fa màng de noonu te loolu lépp da nga naan mbuur ak yooyu waaye ci biir mbuur commune bi ku ne gis na bombar ji taxawaayam ak ñoom Auguste ñoom ñoom assurance ñu ay mbër yoo xam ne ay international lañu mais nag di leen wax ne rek ñu ngi ci biir bàyyeeguñu Bombardier am na combat wala annoncé nañ combat am ñi des tamit war nañu mën a am ay combat Auguste war na mën a amaat combat bu fekkee day dellusiwaat bëree pakala mu ngi ci biir mu ngi ci mbabat mu ngi gagné ay tournois war na war na bëraat arène assurance itam kazalika naka noonu ñuy ay mbër yoo xam ne defe naa ne tey marqué nañ sa empreinte si di ñaan rek mooy li nga xam ne ni waaw kii nag promoteur bu bees la bu ñuy Adama Sané daa mel ni moom ñëw na ci lamb taxawal benn combat de feu parce que Petit Niang bu boon ku ko xam-xam na xale la bu am avenir lamb Brise de Mer tamit mu jiitu ci lamb waaye moom itam avenir la ci lamb yaa ngi dégg ñuy ñaari mbër yoo xam ne nii boobu combat taxawal nañ ko ñuy ñaanal promoteur bu bees boobu loolu mu sumb yàlla na ko yàlla may mu yegale ko ak jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak bépp promoteur bu sumb dara rek bu ñëwee ci mbirum CNC tamit Abdou waaw nekk colonel bu nekk retraite moom moo xëy di wax ji Alioune ak li mu jàpp ne xëy na bu doon moom la ba tey dem na ak li mu jàpp ne CNG bi dañ ko war a structuré waat defar ko ba nga xam ne ni mooy loolu ak itam jàpp na ne ministre bi Matar Ba moom bu ko neex sax mu reconduire at Alioune Sarr waaw mën na ne waaw reconduire ko wala mu ñàkk ko reconduire ñun daal li ñuy wax mooy li am ba des daal mooy équipe bi ñuy indi muy jiitewaat làmb wala mu koy yore bi yoon yàlla na nekk boo xam ne dina fi def lu raw li équipe fi jaaroon def loolu la ñuy souhaité ko ñaanal waa làmb xamuñu nag ku muy doon parce que loolu ba tey comme ni ñu wax rek ministre bi moom moo yore ay pouvoir am moom mooy nominé sàkku xam-xam bu ñu fa demee benn victoire trois défaites la ñu am muy euh, bilan boo xam ne ni wax dëgg yàlla nombre de combats yi néew na dafa pare défaites yi moom moo ëpp victoire benn victoire boo xoolee la ñu am

bu ñu demee fa nga xam ne nii moom mooy record maa ngi jégalu ah, maa ngi jégalu bu ñu demee ci record tamit lañu fay fekk mooy Matar Ba ak la nga xam ne nii moom mooy li yëglikaay bi xam ne ni comme activité sportive yi annoncé waat nañ ko ah est ce que novembre kon début yi du ci war a mën a ne mois de novembre ah yàlla nañu yàlla dimbali ba novembre bi ñu mën a commencé làmb ji bëri parce que actuellement waa làmb namm nañ làmb te itam promoteur yi investir ñoom tamit ëllëg fan la ñuy am ak fu ñu yaw justement ña nga xam ne dañ njëkkoon a joxe seen xaalis ba ñu jàppoon ay date a bëri rey na tey defe naa ko defe naa bu loolu mënee am yàlla na nekk dëgg parce que tamit loolu mooy li nga xam ne nii euh, lu am solo si réew mi daal Bombardier ndax du ne waaw mm, est-ce que du nekk ci Balla maanaam jël place su Gris waaw loolu day mën na war na mën a ne sans départ ci promoteur bi ak Gris waaye bu fekkente ne Gris bëgg naa bëre Gaston bëgg na Gris bëreel ko te defe naa loolu ñoom ñoo ku ci ne nangu woon nga ko Gris bëggoon na bëreel gas bëgg na bëreel Gaston pour man Gaston it bëgg na tëgg Gris ndax loolu tax mu génn xaalis jox ko kon defe naa tey la ñaan rek lañ ci doon ñaan yàlla na combat boobu am Gris Balla yàlla na itam Bombardier ma seen am te lépp nekk ci compte Gaston Mbengue mi nga xam ne annoncé na ko ba sumb ko parce que ñun bépp promoteur bu annoncé combat ba sumb ko rek a xew te Gaston naa tey ci làmb icône la ci wàllum làmb ci match bi mu ci pàcceer bi maanaam côté bi mu ci féete ndax dafa naa ne amatul tey lu ciy prouvé kon dañ koy ñaanal rek loolu mu sumb ak promoteur yëpp ku ci ne la nga sum nga mën ko yeggale loolu ñaanal waaw monde de simple bi tamit ak mémorandum bu ñuy waajal ak yooyu pour prochaine équipe bu CNC bi waaw loolu lépp mën na ne parce que li tax mooy ñoo bokk teen bi te ñu bokkub teen ñuy laxasu ay góoj ku ci nekk nag la la naqari wala la nga jàpp ne li war nañ ko mën def am nga droit bind ko ci kayit tënk ko ci mémorandum jox ko kilifa ya pour que ñu teel ko saytu la ca baax ñu téye ko leneen loo xam ne jàpp nañ ne doxalul ñu bàyyi ko parce loolu mooy àddina di balu ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu tamit sama mbokk yi nga xam ne ñoom laa bokkal micro bi muy sama confrère yi su ma ko waxee rek parce que bëri dafa am benn erreur bu am bërki démb parce que émission la ñu waroon tourné ak Tapha Tine ak Boy Niang Pape Thialis Faye ma leen tëgg moom moo initié woon tournée ak ñoom émission ñu xëy xëy gis ñu dugal benn face à face Tapha Tine Boy Niang ci seenu Leewtoo ñu bëri woo ma ne ma da ngeen def face à face di ko nëbb te xëy na demewul noonu njuumte moo ci am ñu ciy jéglu baax a baax a baax ñu ciy jéglu bu baax a baax parce que yaakaar naa ne ñun ñu yor micro ñun ñoo far te Babacar moom nekkul nit bu nga xam ne nii kuy dox ci euh, xeex nit la wala nangam sangam wala nit nit non non non non Pape Thialis Faye mi may liggéeyloo non mënut a am ma di ko dugal ci loo xam ne nii euh, maanaam xeexu personnel lay doon wala diw na wala presse nangam na non non non man presse bi ak euh, ñëpp sama ay partenaire lañ ñëpp sama ay waay lañ ma leen di nuyu ñoom ñëpp nag daa A à Z bàyyiwuma kenn waaye da ci simpi kenn koo xam ne rek yàllaa ñu boole te loolu moom du dañ yàlla nañ ko yàlla gën a sàmmal parce que même bu ñu demoon tey ba am problème ak moom sax du tere dinaa xam ne sama nit la te ku ma bëgg la te noonu laa ko bëggee muy Lamine Seck sama rak bu Lutte TV moom yàlla daf ñoo boole te yàlla rek tax ndax loolu dafa jiitu may wax wala moom muy wax ñu duñu dégg kon defe naa boobu ànd dëgg la ñi ci des ñëpp itam am naa ak ñoom diggante yu rafet yàlla na ko yàlla sàmm waaw yàlla na yàlla def jàmm Sénégal di balu ak internet yi di bal jàmm Sénégal di wax ne màggal gi ñu jëm yàlla nañ ci dugg bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin defe ko te ñëw lépp ci Sénégal buñ ci jógee dem ci gàmmu gi tamit loolu lañ ciy ñaan di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne Sénégal yal na fi yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa